ànd naag moom fekk na ma Mauritanie moom ak Mamadou Ba mii ay yoon yoon waaye tamit toogaat naag moom ay jotaay yu baree bëri ba nga xam ne tey fii nga xam ne moom laay tiitaroo muy jam ñaajo ci île moom moom laa fa njëkk a ànd ak dem ci île bi te boobu sax xaw ma lu xew ndax boobu maa ngi nekk xale gis nit ñi di dugg ci kaar fii ci buntu këram man tamit yàlla may ma ni ma gisee ñuy dugg rek ma saa ci dugg te jour boobu ba may dem. du ma ko fàtte mukk maa ngi sol short ak benn t-shirt bañ duggee ci gaal yi ba dem ba biir fu ñu ñu dugg ci gaal yi continuer dem ba jam ñaajo ci la may soog a gis na ma yow lay def ak li nga sol nii ma nekk foofu waaye waxuma dara ma nekk foofu nit ñaa ngi gàmm waaye ñun ñu ngi dox ci biir dëkk bi di xool xaw sax li ñuy def lan la waaye ba ñuy ñibbisi ci xaalaw moom Cheikh Mouhamed El ba ñuy ñibbisi ñëw nañ ci benn dëkk boo xam ne rofangee lañ koy wax waaye keroog laa gis lu yéeme loo xam ne nit ñaa ngi koy def xëcc nañ gaal gi di ko xëcc ba yenu gaal gi dugal ko ci biir dëkk boobu keroog ba ñuy ñibbiwaat ci biir gaal gi gis naa jigéen joo xam ne boot na doomam ci digg géej gi mu daanu ci biir ca kenn jëlewul ma gis ñuy daanu te loolu yépp xaal la boo xam ni lañ gisoon ci ki nga xam ni yàlla may na ko ci may yu mag a mag yi kooku mooy sëriñ Hadi tey jii bësam la ndax bës boo xam ne la dañ koy fàttaliku yal na yàlla yokk leeram duñ ko jooy ndax bàyyi na fi loo xam ne njëriñ la ci lim fi bàyyi parce que doom bu nekk dañ koy ñaanal mu niru bàyyam ndax alquran ba muy wax adu li abaayikum la wax ndax nit duñ ko jël mukk di ko tattaleeg ndeyam wala nangam déedéet nit ci bàyyam rek lañ koy tattalee te alquran moo ko wax kon su ko waxee rek mooy yàlla moo ko wax kon bàyyi nañu fi moom Cheikh Hadi Ibrahim Niass mooy Cheikh Ibrahim waaye bàyyil nañu fi tamit doomam mu tudd Cheikh Ibrahim waaye kenn du ko xool mukk di rus ci xam-xam waaye kenn du ko xool mukk di rus ca baayam ca lam nekkoon tey suñ ko doon seede ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak ak baayam ku mel ni Cheikh Barham Awo ku mel ni monsieur le maire mun nañoo taxaw ne gis nañ li nga xam ne bàyyam noonu la doon def mu fonkee woon doomu aadama yi bët bu set mu ngi ci gàmm yi bët bu set mu ngi oo nit ñi ñu dajaloo ñëw toog ci këram gi ñi wax ci yàlla tey gis nañ ni Cheikh Ibrahim bi am na ko ci boppam kon ñu ngi lay ndokkeel ci bés bi moo tax ma jógee Dakar ma dégg naa léegi ba ñuy bàyyi di def li nga xam ni mooy communiqué bi ne ah à partir de vingt et une heures xaw ma vingt heures dootuñ joxe benn autorisation waaye man de nee naa ne jaral na ma ma ñëw te du ma dellu pour fekk bés bi ndax bés bii ngëneel la ci bés boo xam ne soo ciy dox sa tànk gëm naa ne nii ma ñëwee dugg ci saal bi lépp lu ma tooñoon yàlla man ci sama bopp man Baye Mbaye am si gëm naa ne yàlla jéggal na ma gëm naa ne ba ma duggee rek yàlla jéggal na ma ndax bés bu barke la ba su alxuraan la ba su dimbale jàmm yàlla yi ñu gisante te gisante ci biir jàmm yàlla yi rek dañuy ziyaarante loolu yokkute ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal sa fan yàlla may la wér yàlla may la wér parce que duñu la jaanal lenn dañ naan doomu ñay bul ko ñaanal mu rëy ñaanal ko rek mu gudd fan waaye dëgg-dëgg dañ lay ñaanal lépp guddal fan yokkal xam-xam yàlla bu la seytaane topp mukk ndax tiital nga ci ñun man damay wax ne su ma gisee doomu Médina lum ndaw ndaw ndaw ci zahir su ma ko gisee muy góorgóorlu rek dama koy naw dama koy naw sama xol dafay set te gis nañ ne koo xam ne la soo soogee rek foo waxee rek gisoo quartier général bi rek dama toog seetaan ko parce que man a manqué nga fa loolu xam-xam moo koy maye yàlla yàlla yokk sa xam-xam ñu ngi ziyaare ñëpp di wax ne ñu ngi ndokkeel tamit comme président de la république ci matuwaay yi nga xam ne jël na ko ñu ngi ciy gërëm ñu ngi koy sant na nit ñi tamit dellu xam ne lii ñu leen di wax feebar bi dëgg la nekkut loo xam ne caaxaan la corona dafa am te corona bii dañ xam ne kum yegsiwul ci yow rek mënoo ko gëm waaye nañ topp lu ñuy wax distance yi nañ ko mayante nañuy jël masque yi nañuy bàyyi nuyonte bi su ko defee lépp tamit dana mën a kii ñu ngi ñaan président tamit na ko dara du ko fi génne lu dul ñaan yàlla rek moo ko fi génne ñaan yàlla rek moo ko fi génne te loolu moom président na fexe góorgóorlu ba bàyyi jumaa yi même si dix personnes cinq personnes ñuy toog ci jumaa ji di ñaan yàlla yàlla danañu nangul ba yëf yi dem kon ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal président moom tamit ci liggéey bi ñu ngi ko ci félicité parce que bokkuma ak moom xalaat waaye wax dëgg yàlla xalaat bii muy jël rafet na ñu ngi ko ciy dimbale di ko ci encouragé tamit di dimbalante ak moom ci loolu kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla yàlla defal ñu jàmm ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum